mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi nga xam ne yéen a safoo di ñu seetaan ci Equivox TV tey nag dañoo ñëw fii ci Pikine tali bu bees li fi xew nag démb di ab jiyee ginnaaw nag bi ñu gisee ne rek ñaari waay dencante ñoo fi uh, daal di faatu ci seen néeg anam boo xam ne rek uh, dafa doy waar li indi li ni mel nag uh, ba léegi kenn xamagu ko ñenn ñi nag ñu ngi wax ne rek dañoo fatt maanaam dañoo taaloon cuuraay ci néeg bi nga xam ne rek fa lañ faatoo ba daal di ci fatt waaye nag li nga xam ne moo di enquête bi bouclé ko ba def rek autopsie bi nga xam ne moo war a wone li nga xam ne moo tax ñaari waay dancente yooyu faatu nii nag dinañ daal di dem rek ca dëj ba daal di fa taataan quelques informations rek ba xam li indi li ni mel fii nag mooy kër gi nga xam ne rek fa la jiyee bi xewee démb kon nag gomis dañuy daal di dem rek ca dëj ba xool rek lañ fa mën a jëlee voilà mbokki téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi fi rue 10 fi nga xam ne rek fa la dëj bi amee bi ñëwee nag ñu fi njëkk a tasal rek moo di xaritam xaritam benn bakkan buy wuyoo ci Roqeya euh, salaamaaleykum soxna si. maaleykum salaam. Euh, gannaaw balaa ñuy commencé waxtaan bi rek ñu ngi lay mastaw ci li nga xam ne mi ngi fiy jot a xew te di la euh, jaal rek sa xarit bi nga xam ne génn na àdduna muy ayda lan nga yan seede nga mën a def ci Aida. waaw seede yu bari ta baax rek ndaxte ànd nañu. fanweeri at noo defandoo lépp mu nekkoon fii kër maamam man tamit ñu nekkoon fii ñun ñëpp xale yaa ngi fii xale yëpp a ngi fi toog sax ànd bu rafet rek la ñu ànd ak moom ak ànd bu dëggu ak gëm liggéeyam gëm na liggéeyam bëggoon jëkkëram ak ay doomam foo ko fekkee rek mi ngi toog ak ay doomam ak nabu tamit njëkkeem foo ko fekk mi ngi toog ak nabu uuf tamit ay doomam ay da liggéey rek lañ ko xamee ak am fula ak personnalité ak dignité am xëy na nag yàlla bu soxla ku soxla da ngay ñàkk mais xaaree wuñ ko woon fii waaw xaaree wuñ ko woon fii yàqu fi tamit dara lu baax rek la seqoon nag ñun ànd ak ñun ñëpp xale yaa ngi ñëpp ak ngi toog ñoom fa jaalo mu ànd ak ñun nag ànd bu rafet fanweeri at xam nga ni loolu yàgg na depuis bi ni xale ba léegi tey rek la nu may sa am lu nu naqari muy démb ak tey ci ay dafay foo ko fekk rek lu baax lay wax. ak luy bégloo nit ñi rek ak di la defaral musóor yu rafet pour foo dem rek nga daal di daan ak sañse yu rafet muy nit ku baax nag waaw nit ku baax. ñu for ci woyu bene ñoom euh, li leen faat rek mooy dañoo tëddoon ci néeg boo xam ne dafa yoroon cuuraay maanaam dañoo fat ndax dëgg la wala. ah ñun ñun ñun rek ñun tamit lañu lañu nu wax xam nga liñ la wax rek moom ngay mën a gëm mais ñu ne noonu rek lañu yeewoo nu woonu rek ñu ne ay dagaañu nag ak borom këram. ñun tamit loolu rek lañu ci am waaw li ngeen ci am rek lañ ci am. voilà Gomis euh, yaa dégg li mu wax mbokk téléspectateurs yi vraiment xol yu tooy nañ ay xol yu tooy rek lañ fi fekk ba wax sax da leen di jafe donte ñu ngi góorgóorlu waaye wax ji ñuy wax ni dañ koy forcer bu ko defee rek ñu daal di dugg ba ci biir kër gi. na si na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. tur bi naka la. seen Sène madame Beye. ki nga xam ne rek moo génn àdduna di ay dem. waaw. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñ ñaari waajur ay Aida sama umpaañ la parce que sama ndijaay la njëkk a tubaar tubaarkàlla macha allah juróom moom ay njaboot yàlla dogal ñu àdduna di dox ba nekk marché nekkandoo faak moom dafa jaayandoog moom nekk faak moom nekkin wu rafet nag muy nit ku baax di nit ku rafet xol di nit ku jàmbaare tubaarkàlla macha allah di nit koo xam ne dafa bëgg ndayam tubaar tubaarkàlla bëgg ay doom ay Aïda lu mu liggéey jant ba ba jant so ay doomam rek la koy jox bëggul dara bëggul bu buggul dara yàlla nag moo soxla bu soxlaa ñëpp ñàkk yàlla na ko yàlla àtte ci màndee moo borom këram yóbbu leen ci àjjana firdaws yi gën a kawe ci àjjana nit ku bëgg sëriñ fàllu yi lat nu mu bëggee sëñ fàllu ci xolam yàlla na ko sëñ fàllu teeru taral ko yóbboo ci àjjana firdaws si fi nekk nii nag wax ji mënut gudd ndax ñu ñëpp suñuy xol dafa tooy jërëjëf loolu la. waaw bàyyi na fi ay njaboot waaw. yaaya euh, balaa ñuy tàmbali waxtaan bi rek ñu lay masawu ci li nga xam ne jot na fi am di la jaale ki nga xam ne moo di ay dafay yow lan nga woon ci man bàjjen la ci man ndax ñu ñëpp ñoo bokk fu ñuy liggéeyee ñoom ñëpp bàjjen laa leen di wax mu def ñu comme ay doomam ñun ñoo nekkoon ay moromam saay bu ñëwee ci ñun lay toog doom nday sax la ñuy wax ñu fekkantu daan doom nday yéen a ngi toog nekk nit ku baax fonk nit nit ku am valeur nit ku xamante ne amul benn problème ba ci lënd bi rek ñu nag moom ñoo nekk ñuy kaf dire ree jour boobu man damaa teel a wàcc falaa ko fekk falaa ko bàyyi mais jàmm ak salaam rek la ñu nekkee woon dara musul ñaaw te rek lañ mës a am lu ñu naqari ci moom muy jëf ji mu def te yàllaa ko bëggee ni nii la ko yàlla dogalee ko ñaanal fi mu jëm gënal ko fi mu jóge njabootam gi fi yàlla bàyyi ñu teg ci loxo te ku métti yàlla na la raw. voilà ñu ñëw fekk leen fii ngeen toog euh, rob nañ ba léegi wala rob. déedéet dañuy xaar ñun ñi jot ci koor bi ndax waxaguñ dara lu leer. donc waxaguñu dara. ñenn ñii di buñ fowee ci weer weewu bëy ñenn di xam le ne ki nga xam ne mooy di ay dafay ak boroom këram li leen faat rek mooy euh, cuuraay lañ taaloon ba ñu daal ci fat loolu non loolu moom ma ci wax lu bari parce que du ma wax lu ma wóorul waaye niñ ko mën a jàppee mooy yàlla moo ñëw dogal bi wàcc ci suñu kaw mais lépp lu ci mënti amit lu mën a xew docteur yi bu ñu ko saltitoo ba pare di dinañ ñu wax exactement ñu xam lan la mais ki yeewu ba jël paas jox ko doomam tëddaat mook borom këram yeewu waatunu foofu yàlla rek moo mën a wane keneen ku dul yàlla yaakaar naa mënu faa sori te wax dëgg yàlla man mu ma cee sori waa euh, affaire yi moom buñ ko yëgee def ñuy choqué ñun ñëpp daf ñuy jaaxal mais dañ naan alhamdulilahi rabi alamin rek parce que yàlla dee la njëkk bind ko dund kon dañ koy sante suñu borom rek ndax moom volonté divine la volonté divine moom mën ñu ci dara ndax suñu borom dafa ne wala xadd karam naa banni aadama doomu aadama laa gën a bëgg du coup lépp lu muy def rek si njëriñu doomu aadama la dañ koy sante suñu borom rek waaw dafa génn àdduna muy euh, Aida ban lien ngeen amoon. waaw sunu mama la mooy sunu mama ñun ñëpp ndax tey jii nii soo demee ci quartier dina am lu ñu naan bàjjanu gox bi wante ñun sunu marché moom yaa ji Cheikh la bañ na ko ba añam ci digg marché bi la koy teg foo waay jóge mën nga añ xam nga ni tey jii bien vrai que loolu réalité sénégalaise la mais léegi luñ koy gis bariwut mais teewut moom da ko daan doxal añam ci digg marché bi la koy teg foo jóge añ xam nga ni kooku. kon nit ku baax la ku oyof la koo xam ne waaw di ko loolu lañ mën a wax ci moom daal lu rafet rek waaw. dëgg la ndogalu yàlla moo ñëw waaye ñu fe ñu for ci weewu bay ne euh, li leen faat rek mooy dañoo fatt ginnaaw bañ taalee cuuraay seen néeg est-ce que loolu. non lool moom je préfère m'abstenir ndax awma ci lu ma leer ndax gis nga lépp loo gis dafa am ñu ciy liggéey ndax yàgg neen fi gis ay moor yoo xam ne dañuy ñëw rek déclarer yóbbu mais suñ demee ba sapeur ñëw. police technique et scientifique ñëw c'est parce que dafa nekk loo xam ne xëy na am na lu lu ci nit yi di xalaat te comme que ñoom waxaguñ ñu dara ñun war ñoo wax dara nañ nañ jàpp ak lu ci mënti am yàllaa ñëw rek ndax tamit su fekkee leneen a am nit moom su lay jéemal lu bon wala leneen ak leneen su àntoo rek sunu borom la neex ndax ci yoon bi mu koy jéemee di la jéemal lu bon sunu borom bi mën na kaa faat mais lu ci mënti am rek ne leen déglu ñoom. ñoom seen xam-xam màcc na ci lool déglu di xaar résultat yi waaw. voilà mbokk téléspectateurs yi daal dinañu dugg si rek ci biir kër gi fi nga xam ne rek fii la ay dafay dëkk bi ñëwee tamit fekk nañ fi yenn dëkkandoo ñu toog soxna si nuyu nañ. waaw fay nañ la bu baax a baax. tur bi nag Awa Dia laa tudd. Euh, nga ne dëkkandoo nga woon ci nga xam ne mooy di ay dafay yan seede nga mën a def. ay dëkk bu baax la ñëpp la bëgg ken xamul ku mu bëgg ak ku mu sax yow danga naan yow rek la bëgg te fekk moom ñëpp la bëgg oyof na bëgg na liggéey man de loolu xam ci moom bëgg na njabootam bëgg nañ ñëpp ay daal kenn mu xamul ban façon la nitu àjjana la daal dañuy ñaar yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeel naqar la fi bàyyi ndax waaye bàyyi fi gàcc bu ñu bu doon nit rek koy yóbbu rek du dem ndax keroog ba mu dem ba mu génn àdduna ñun ñëpp a tiit mënuñu daal wax ci ay dara du ak mbaax ak jubbite billaay suñuy wax waxam sax suñu xol day fees dëgg yàlla mënuñu dëgg la bi nga yëgee mbir mi euh, nana la dikkee man dama jaxasoo sax dama doon fóot sax waaye sama fóot noonu laa ko tegee mun ma mun ma def dara ndax tuuse bu ma tuuse damaa waxtaan ak moom ci altine ci ngoon mu bu heure bi jot rek damay di jaabane ma ne ko fii sofeer ay séeréer dana may tukulóor maa ngi koy ñaan daal fu mu jóge yàlla na ko gënal fu mu fu mu dem fii yàlla na ko gënal fu mu daal wax dëgg fu ne buy def moo du ko dañuy muy dem dañuy boole ci boppam ay daal ku baax la daal baax daal laa xam ci moom nitu àjjana la nag yàlla bu ko ci